ñu leen di jox ndàmpaayu quart de finale parce que jour bu ci nee nga jox ko cent vingt millions wala cent vingt cinq millions Sénégal yi suba dañ ko dàq neen ànduñu si mm-hmm. waaye leneen loo xam moo jur coow mooy prime bi nga xam ni nemmeeku nañ ko ci staff bi staff bi ñi ñi ñi demoon parce que bind nañu ne am na neuf fédéraux mm-hmm. yoo xam ne nii ci diggante coupe d'Afrique bi ak coupe du monde bi rek la ñuy percevoir ci ay prime kenn ku ci ne toll na ci deux cent vingt millions tout à waaye maanaam lépp doo ko boo ko doon def somme globale mu ngi toll ci un milliard huit cent et quelques millions de francs CFA balaa ñoo ñëw ci prime yi dama bëgg nga wax ma ñoom fédéraux yi leen ban njëriñ lañ amoon. ci ci Qatar bi waaw. Euh, fa amoon njëriñ. boog ñi ma gis. matul cinq de. déedéet. Hmm. Hmm. ñoo xam ne ñu ngi ci biir liggéey bi. ñoo ñi nga xam ne ñoom dañuy liggéey. ñooñu ñu ngi foofu ñoom dañuy liggéey matuñu juróom kon nag ñeneen ñi liñ fa nekkee woon mooy bu ñu yeewoo ndékki ndékki lu neex parce que hôtel yi daa neex. Mhm, maanaam ma riirandoo daal. Euh, dem dem doxantu dugg métro di doxantu ci dëkk bi. Mm, tourisme nangam ñëwaat toog añ. demaat doxantuwaat nangam toog naan ataaye seen euh, ci seen kii boobu seen euh, chambre yi waxtaan jeex na. waaw te ci ñu mel noonu am nañ ci prime yi te ñu mel noonu am nañu ci prime yi defuñu fa daan waaw waaw am na koo xam ne man dama ko gis ci liste bi man maa ngi ak bi liste bi ñi am ñi jox dama ne am na ci koo xam ne man man man man euh, dama ne sooy liggéey bu ñu lay fay dëgg la war nañ la jox indemnité de voyage. d'accord na mm-hmm. mm-hmm. mais nag yenn yenn yenn yi di koy jox nit parce que rek yow dem nga. indemnité de voyage bu fekkee te dégg naa xaw ma ndax charte yi wax nañu ko mais dégg naa cent mille francs la do loolu la. ko passé quoi. mais loolu la. mais ñun loolu la. cent mille francs la par jour jox leen. Mm-hmm. ñu demoon nga ne cent mille francs par jour dem leen da ngeen di dem liggéeyal Sénégal. da ngeen di dem nangam kii. waaye di le problème mu prix mu Sénégal yi dina am dina yàgg def problème parce que euh, fu mu nekk nii dañoo nekk ci benn football boo xam ne mhm. gars yi ku ci nekk ñoom ñëpp ñu ci bari laa la wax au nom de Dieu xooluñu intérêt wu footballu Sénégal seen intérêt bopp moo fa nekk mhm. ah non au nom de parce que euh, euh, c'est que kaay dama lay benn affaire lan moo di coow lu un milliard huit cent yi mhm. lu ko indi xam lu ko indi ah. daa leen ko expliqué dañoo dernier comité exécutif bu ñu doon def listu délégation officielle bi parce que délégation officielle bi foofu ñoo ñu am droit am prime ci ñoom niñ ko waxee mhm. te loolu sax teguñu ko fenn mais euh, ci loolu la dañoo ne comité exécutif dañoo toog ñu jël ci quelque ñu ne ñeneen yi ñu ne leen bon diw ak diw ak diw bokk ngeen waaye nag bu ñu demee ba ñëw mhm. ku ci nekk dañuy jël sa xaay dugal la ko sa compte waaw waaye nag bu ñu ñowaatee fii nañu daje fii ku nekk génnewaat xaalis bi ñu seddoo ko ñun ñi hmm. loolu la doon wax bi li déggoo woon quoi déggoo woon te jëfewuñ ko léegi bi ñu ñibbisee hmm. ab ah, coow li sax fële la commencé ca Qatar am ñoo xam ne dañ doote naan eh, maa ngi koo wuti ndam li jeex na bu ma àggee xaalis bi nag génn. waaw nag génn wala police. <laughs> wala wala plainte waa léegi loolu bi mu ñëwee. bi ñoo bi gars yi ñëwee. Hmm. ñibbisi bii bi gars yi ñëwee ñibbisi bii. day raaf. parce que xaalis bi dugg na seen compte. waaw waaw waaw. ñoom ñëpp kenn indi góol de xaa peut-être nag tey waaye démb de ba démb de indiwuñu woon. na nga toog jàpp seen ñaam. waaw. loolu nag léegi nag am na ci ñoo xam ne nag dañoo dank fanaanal. Hmm? nee nañ nag ñu ngi xaar comité exécutif bi. gis nga bu dee loolu respecté wuñu ko coow dina am mais mais mais ampleur yi prime yi di am est-ce que buñ ko dakkalul ci ni mu gën a gaawee. non c'est dem ba yàqu lu bëri Sénégal xam nga lan la il faut qu'on arrête avec les primes là. waaw surtout am gën a yelloo club yi ko gën a yelloo. justement justement tey jii tey jii le football boo gisee FIFA. ne euh, affilié Sénégal. CAF affilié Sénégal. Mm. club yee tax club yee tax waaye. Ah, parce aussi man paradoxe bi mu si jaaxal mooy que imagine benn fédé benn waa ñu bokk ci fédération sénégalaise bu football. ko prime cent vingt cinq millions. waaw alors que club bi boo xoolee ba xool li koy fédération di jox passé wu sax quatre millions. doo dégg li ma la wax. doo dégg li ma la wax mënu ko nangu quand même. non doo dégg li ma la wax club eh, yi dama ne. yu bëri amuñu dara fu mu club yi imaginel benn club bu mel ni dama jël benn club rek. club bi gën a ndaw ci champion suñu football local championnat professionnel club bi gën a ndaw ci budget quatre-vingts millions la moo gën a ndaw mooy budget bi gën a ndaw. Mm-hmm. pour jouer yëpp. waaw pour jouer championnat bi quatre-vingts millions waaye yow yow mii. nga ne yooyu yaay fédération yooyu yaay yaayam yooyu yaay yooyu yaay kii. ngay sédd waa yaa ko war a jàppale. Mm-hmm. ci koo xam ne il dépense quatre-vingts millions la ne yow benn yoon yoo nga koy jox quatre millions. waaw man lu muy doon quatre millions. waaw huit million la bi gën a ndaw huit millions la yo nga a da nga koy jox quatre millions quatre millions faylu sax équipe équipe buy préparer semaine chaque semaine il dépense quatre cent mille francs CFA pour préparer euh, waaw pour préparer benn match mhm. cent mille francs mhm. multiplié par cinq deux euh, xool mhm. ñaata la du deux millions 2 millions mu préparé 2 millions y' a combien de match y' a combien de semaines dans le xool leen semaine bi ñaan euh, kii y' a 4 match. Mm-hmm. voilà y' a millions. waaw kooku yow nga naan da koy jox 4 millions. tuuti léegi nag yow nga jël dirigeant bi mm-hmm. benn dinaa leen wax benn affaire boo xam ne moo am. waa fédération yi comité exécutif chaque mois chaque mois. Mm-hmm. ñu jox fédéraux ñu jox ko 2 millions. fédéraux yi waaw 2 millions 500. payoor la wala ndampaay la. Ah, déet fan lañ ko teg. ku leen ko jox neexal la wala noonu fédération. waaw comité exécutif. ku ci nekk am nga. deux même bu ñu bu ñu liggéeyul. bu oh, oh, compétition oh, am toog nii rek ah, ah jox nañu sa benn deux millions cinq cent. avec ça yow nga bëgg a ñëw jël léegi nag yow looy jël nga bëgg a jël lu toll ni cent quinze cent vingt millions cent trente millions. footballu Sénégal du dem. mais est-ce que aussi Abla. Euh, non footballu Sénégal du dem si ñoom président club aussi duñ ci ay complices. ay ñoom ñëpp ay complices lañu. parce que boo xoolee. Euh, mhm. bañ doon def renouvellement instance yi. Mhm, mhm. ku ci mel ni euh, président de bu ki ki nekk. génération génération foot. taxawoon na. maa ngi waaye mais boo xoolee club yëpp dañ dem ànd ak Augustin Senghor. xam nga lu tax.

et puis di dund ko les mêmes personnes ñoom ñooy am xaalis football Sénégal. di dund même du changé. Mhm. ku ci yuuxu Adama Ndour daa yuuxu gars yi dugal ko joxuñu ko woon ca Coupe d'Afrique ba bii gars yi dugal ko. mooy daas bi waaw non non non Adama Ndour. dañ ko dugal. Mhm, bii bokk na ci. waa mhm, bii bokk na ci. boo kaasee rek yuuxu kii rek gars dugal la. ok maanaam daal di del waaw man xam naa ne man aw club ma amoon club gars yi dugal ma. waaw ah, parce que yow da ngay kaas de. ah waaw waaw waaw man nag dinaa kaas. Mhm. man nag gis nga man toog naa. mais avec ça kon football Sénégal jëmul kër ah, jëmul kër jëmul ah, kër avec ça naka lay football Sénégal jëmul kër football Sénégal benn dafa toog mhm. Augustin Senghor dafa ma ñëw fekk Qatar. Mhm. ma ñëw ba ci moom nuyu ko parce que man sama waay la. ma ñëw nuyu ko nag waa président bi sax ma ne ma yow sànni xeex rek. yow daal gumisi yow daal sànni xeex rek. yow daal lii rek nga fi nekkee. ma ne ko mais président nit buy def dara dina def lu baax ak lu bon. oui. man nag le train qui arrive à l'heure ne m'intéresse pas. Mm-hmm. Ah le train qui n'arrive pas à l'heure moo ma intéressé. journalisme moo bindoo noonu sax. ah voilà ma ne ko nag man loolu laay wax. journalisme moo tëggoo noonu aussi. waaw surtout ah. ça waaw ah. et puis alerte yi ngay def dafa am solo. ah non mais te te bu ñu doxee tuuti aussi. gis gis résultat c'est que dama lay wax bu ñu xool li Cheikh Tidiane di wax mais euh, bu ñu xool euh, euh, kii bi Cheikh Tidiane nii. Mm-hmm. mais nañu xool. li muy wax ndax dëgg la waaw li muy wax. lañ moo mun a defaraat équipe national ba mu tegu ci yoon muy fédération muy Aliou Cissé ban doxalin nga yaakaar ne fii léegi deux mille vingt quatre soreetul te deux mille vingt six. ñi nekk fédération yëpp ñu dàq leen. ñoom ñëpp ñu dàq ñëpp maanaam maanaam Aliou buy dem na yóbbaale ñëpp. na yóbbaale ñëpp Aliou Cissé du fi jóge te ñii toog fii Augustin mooy njëkk a dem bu dee dañoo bëgg a defar man maa la ko wax man man maa la ko wax bu dee dañu bëgg a defar. Hmm. amaat yeneen ndam préparé waat changer idée yooyu ay affaire prime yooyu ay xuloo yooyu xaalis dootul amati ñii ñooy dem ñoom ñoom nañ dem. Aliou Cissé na ànd ak ñoom Augustin ñoom Ablaye Sow ñoom ñoom nañ dem. ñoom Amadou Kane ñoom Amadou Kane ñoom rek ñoo fi nekk. Hmm. ñaata at. nañ dem seen yoon mën naa ko hmm. bu dee loolu la. buñ ko defee buntu am. <coughs> buñ ko defee mën na la ñu changer parce que amuñu tax. est-ce que xam nga yow. est-ce que est-ce que. est euh, est-ce que ñu du football du Sénégal. Hmm. équipe nationale xam lu muy peser ci xaalis. Hmm. man dama toog ay kàngam. yu marketing. dina ko yu finance toog. Hmm. xam nga lu muy euh, peser. équipe nationale du Sénégal lu leer laa la wax. équipe nationale du Sénégal pèse cent milliards. deux milliards cent milliards laa la wax l' équipe nationale du Sénégal pèse boo ko doon jaay. Mhm. mën nga ci am génn ci cent milliards. waaye na fekk nag lépp ñu teg ko ci yoon. waaw léegi kon bu fekkente ne moom dafay peser loolu kay. lan moo tax kon état Macky suñu xaalis di leen jox loolu la. loolu euh, parce que fédération de tu te poses la question ñoom ban njëriñ la ñu am. te xaalis bi ñuy duggee xaalisu état bi rek la ñuy dugal. état parce que bu dee Aliou Cissé la. dama ne koy fay. Macky Sall ko boo demee France fu mu toll nii. Deschamps fédération bee koy fay. non doo dégg <laughs> allahu akbar yaa ngi merci. Mm-hmm. dama ne. Mm-hmm. Euh, Sénégal moo am loo xam ne mm-hmm. dëkk yu bare amuñu ko mooy que européens yi amuñu ko de. Euh, équipe nationale du Sénégal est financée. entièrement par. l'état du Sénégal par l'état du Sénégal. kay moo tax gars yi gars amul leneen lu ci fédération di dugal léegi mu ci at yi di ci doo moo tax gars yi bi décor la doo dégg lu ma la wax euh, fédéral football euh, équipe mm-hmm. euh, mooy joxe mm-hmm. état mooy joxe moom nag cent milliards yooyu nag doo dégg avion dugg ci keesu fédération bi léegi nag xaalis bi football bi di gagné kaaf mm-hmm. buy jox FIFA. directement fédération lay kii waa lii xaaj boobu anu. alors mooy question bi mais où est l'argent. mais boobu dafa waroon a delluwaat ci keesu état. Ah, mais loolu problème. non non ah. déet non c'est que li gën sax li gën. Ah. li gën a rafet. mooy na delluwaat ci club yi. club yi askan wi waaw nag delluwaat ci club yi. Mhm. club si seen bopp. Mhm. loolu kese la amul lii ma ne eh, li ñu nax a jot nii ci coupe du monde bii. Hmm. nañ ko jël dégg nga ou bien même bu dee sax genn bi. nañ ko jox club yi beneen génnewaal bi nañ ko tabax ay terrain. et surtout ça ay ay ay infrastructures sportives pour mën a dalal ay terrain d' entraînement club bu nekk ñu ne léegi am nga benn terrain d' entraînement. mais loolu loolu ay xalaat la mel ni naa la ça pèse cent milliards am na koo xam ne dafa toog ba saa moom ne jox leen ma dama ko xam xam naa ko mën a liggéey la mhm. koo xam ne dafa liggéey ak yenn club bi sax mu ne dañ may jox équipe nationale man ma jaay ko léegi. lekk ci xaalis. man jaay ko léegi jaay ko. PSG tu as le ballon d'or yaa ko yore. Mhm. tu es champion d'Afrique. tu as qualifié à la coupe du monde. Mhm. Euh, valeur marchande bi. moo am doole. Mhm, day diis gànn. mais ñoom mënuñu kaa jaay. léegi ñëw ci perspective yi gis nañu Sénégal toog na huitième de finale coupe du monde léegi fu mu toll ñu ngi waajal coupe d'Afrique yi di ñëw euh, ñu gis euh, taxawaay bi nga xam moom la Maroc war ci coupe du monde bi ndax yaakaar ne Sénégal fu mu toll nii amatina capacité pour conserver son titre. tout à fait. xam nga dinaa la yëgal benn affaire football dafa nekk benn affaire boo xam ne le processus la dégg bu baax la ma lay wax billaahi processus. bu équipe nationale du Sénégal processus bi moo jeex dañ ko wax a teel a changé. dañ ko war a changé ça c'est vrai. équipe nationale bii. Hmm. gagné coupe d'Afrique bi. Hmm. ak Aliou Cissé. jeexal nañu nationale boobu. dafa jeexal il faut que ñu soppi ko. tout à fait soppi ko ak naka mooy changer entraîneur changer indi benn entraîneur boo xam ne bu expérimenté boo xam ne bu xam. boo xam ne mën na am euh, euh, change parce que booy yi booy yi déggloo Aliou Cissé. respecté duñ euh, discours bi moo jàllatul. bu continuer du baax. jàllatul. mais beneen entraîneur. def na fi nag loo xam ne nag kenn mm-hmm. defu ko fi. Mm-hmm. nañu waxante dëgg. moo fi indi coupe d'Afrique. moo ko fi indi. Mm-hmm. waaye yow nag il faut ma tontu la sànq nag ma ne. Aliou Cissé indi na coupe d'Afrique c'est que nag gis nga dëgg la nag. gagné na coupe d'Afrique ak am wërsëg. Aliou Cissé mooy entraîneur bi ëpp wërsëg ci monde bi. <laughs> Euh, tirage. tirage. fu muy dal quoi. fu muy dal. ak tam ñi muy dajal. ci coupe du monde bi rek la la la. kay la mooy <laughs> waaye ca coupe dafa yow waaye ñoo dajal yow ñan nga dajal ci coupe dafa ngan da yëpp dañ leen toogloo <laughs> dañoo toogloo ngan da yëpp ci côté bale yow nga ñëw ak booy ngan da yooyu amuñu woon équipe ah amuñu équipe ah, eh, <laughs> gis nga Maroc bii Maroc dafa daje ak kenn dafa dajal ak punkal euh, kii punkal boobu mhm. nax ka Égypte la Égypte loolu lañu buggoon bëggoon <coughs> mais c'est ça ma ne Euh, processus bi dafa jeex. Mhm. processus bi mu ngi commencé depuis deux mille mhm. neuf. moo indi Londres. Mhm. deux mille douze. deux ak léegi ñaataat la ñaataat la. deux mille douze ak léegi douze ans fukki at ak ñaar dix ans fukki at douze euh, dix ans dix ans la processus euh, la dix ans la. Mhm. Euh, kii bi dix ans lay mën. ñu renouveler jeex na. Mhm. da koy renouveler waat. mais mais mais foo teg ne Sénégal euh, dugal na lu ëpp ay millions yi millions ci xar ga fuufa te coupe bi ñëwul wax nga ko keroog. foo ko teg mais mais <laughs> mais dama lay wax. benn affaire 500 dama ne doo dégg li ma la dama mm. li ñu def ci ay xonjom ci coupe du monde bii. Mm. nee la au nom de man man. mosula am. te ñu yem léegi nag xam nga man lu may demandé xam nga man dama ne. Ah. Ah. ñi ñu jox euh, xaalis bi ñun dañ leen wax a woo. mais est que ñoom dugal nañ ko fa aussi. ah waaw. daa mel ni la xew léegi nag xam nga may laaj. li xew ci Covid bi rek. Eh, léegi léegi koo fa voilà léegi waaw léegi xam lu may laaj. léegi lan la Sénégalais yi bëgg a wax. Hmm. bëgg nañu xam ndax Cheikh Tidiane Gomis wax na dëgg. wala waxul dëgg. Hmm. nañ def bilan ñoo xaalis bi fu nekk fu xaalis bi dugg dix milliards yi. fa nekk fan la dugg jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis billaahi buñ ko defee ngeen gis yeneen mbóot yeneen mbóot billaahi yeneen mbóot ngeen gis kon benn génnagul doo dégg lu ma la bi bi bii bu ndaw la rek cinq cent millions bi bu ndaw la Sénégal mooy réew moo xam kenn def bilan Ablaye heure bi jot jërëjëf Seydina